waaw non man ñi ma tuddee nag gën di ministre Seydi mm-hmm. Lamine macha allah xam nga grand Seydi moo nekkoon militaire moo mooy bàcc waaw mooy bàcc non ah, loolu loolu am na solo retrouvaille ngay am foofu si kanam tuuti ah, dinañu ah, ñëw <laughs> si musique mais ñu bàyyi Fatima mu tegtal ñu actualité people yi ñu waan mbokk téléspectateurs yi safoo leeru jamono gërëm leen les internautes aussi ñu ngi leen di ziar Alioune Sow li wax ci euh, ridel bi léegi dafa am solo ñun moom yitte woon nañ ko mm-hmm. ñaari fan yi dañu koy door rek nag actuel ni ma yànjee ni ndax ridel <laughs> moom lay naan ci guddi gi vraiment tëdd loolu la macha allah des koy door salma nag ak euh, mbiru euh, ci showbiz bi sax dañuy dellu mbiru euh, délégué Amar ndax gis nañu jamono yi passé ab vidéo bi doon circulé ki li nga xam ne mooy lune faramaren mm-hmm. ñu jàpp ko wulli ko toroxal ko def ko lu metti ca la génne woon sax ne ki di mat Diop Soubatel moo ko fay mu saaga kile nga xam ne mooy Wally Ballago Seck ak ay waajuram donc loolu nag andi woon polémique kile di nga xam ne mooy euh, délégué Amar ñu mm. jàppoon ni moo sax euh, teewoon euh, tii sax ki leen nga xam ne mooy euh, lune faramaaren jàppoon ko mhm. yóbbu ko ab bërëb dóor ko toroxal ko def ko lu metti ñu doon ci dégg sax na keneen ki di Idali ak euh, Armand Ndiaye di fecckatu Wally waaye nag mu mel ne mujjoon nañu def ab waxtaan mhm. jéem leen jiboole ku ci mel ni Ablaye Diop Xaas moo defoon lu nu mhm. ba ñu mujjoon euh, jiboo waaye nag mbir mi dafa teeri ca yoon ndax délégué Amar moomu leen ni ngi démb ci ngoon lañu ko teg yoxo ci lu ñeel boobu le mbir Idali aussi teg nañu ko loxo mi ngi euh, commissariat bu plateau fa la ñu nekkoon fa la ñu fanaan nigi biig mhm. keneen di Armand Ndiaye moom it ba ñu ko entendre ba pare bàyyi nañ ko mu ñibbi waaye nag délégué la ko gën a xuusal mooy euh, nigi euh, mois de mai wu de atum 2021 dañu ko tegoon loxo ci lu ñeel détournement ci fonds bu toll ci 250 tonnes ceeb mu war a toll ci 72 loolu la sax mu waroon di ko verser waaye mu mel ne la ko waroon la deful moo waral ñu teg ko loxo doolee ci sax nag ak coow lii nga xam ne amoon na Salma. d'accord kon de loolu euh, doy na waar bu yëgee woon noonu lijjanti kaawam balaa lii di dikk. mi ngi noonu loolu lu doy waar la ndax ñu ngi ko doon dégg fan yëpp. ci mm. ay site ak muy génn di kaa mais bon ñu ngi xaar rek fan la wàllante di mujjee ki mm-hmm. gëtam. loolu nag day doolee sax rek ñu naan euh, maanaam showbiz bi ñu koy dundee. Mm. dafa xaw a salte loolu taxul ñu bari di wax waaye ci leneen la ñuy dem ndax ni ngi tey sax naka moom la ñu waroon invité di ko jaal jaal ko Sénégal yëpp muy imam Alioune Badara Ndao mhm. di ku ko xam-xamee ko Abdou Karim Gueye xurum xak mhm. ndax gis nañu taxawaay bu am solo bi muy amal waaye nag leneen ci lu ñeel moom ay mbiram ki la di euh, Jeba ab woykat Abdou Karim Gueye ak mm. waa nitu dëgg dañu ko porte plainte ci lu ñeel boobu lee di euh, lamu saf mu mel ne sax daf ko tere nelaw moom Abdou Karim Gueye mm. ndax xam na ne lam ciy wax daal bu ñu seetee ba seet ay euh, kàddu yu saay-saay la ay kàddu yoo xam ne daal dara jubu ci ndax ay moom Abdou Karim Gueye sax la ko teree nelaw ci boobu boobule son mooy euh, yow laay ree rek yu ni mel ndax xam nga daf ko waxaale ci euh, woy beeg yooyu xam ne ni mhm. sax ab xale bu jigéen boobu la ca nekkoon toog ca kaw ku góor ka di def yoo xam ne mhm. daal ay mbirum saay-saay la moo waral moom Abdou Karim moo porté plainte ki la di Jeeba ngir moo mm. retiré euh, vidéo bi. Mm. mu doon nag lu anti polémique ndax euh, bu ñu sukkandikoo ba tey ci yenn ci ay site internet xam ne nañ ni Abdou Karim la mu def teg ko ci yoon te it sax gisuñu kenn koo xam ne euh, jàppale na ko ci boobu boobule mbir ndax nee nañu dafa dafa dafa naqari da daan ndax woy bi defa lu dul neex. Mm. gis nañ fi ñu fi woyoon. ay euh, ajal ay euh, ngoone Ndiaye yéen woyoon na fi euh, sama beeco Omar ko moom yooyu yëpp <laughs> maanaam daal dañu jàpp ni dafa xool jeebaa kanam gi xaw a xaw a xaw a rek. mu visé ko loolu lañ jàpp sama beeco Omar ko moom. d'accord ma beneen way bu tudd xaw ma lan xaw ma xaw ma lan sa pointure. xaw ma looy sa pointure yëkkati ah, ah? waaw man fi fi ma si intervenir moom mooy man awma problème si si si si si paroles yi. Mhm. Euh, bien vrai que ni dafa am solo lool aussi waaw parce que am na parole yu fi jàll aussi tamit te te tegginawul mhm. war woon jàll mais man si vidéo bi la am problème mhm. bu fekkee ni moom si vidéo bi la la fiyewu mhm. euh, ku jigéen ki ni mu toogee noonu si kii bi wax dëgg yàlla parce que boo xoolee même américain yi su ñuy def yenn yenn promotion benn son dañuy defar ñaari video am na vidéo yoo xam ne am na chaîne yu muy daw mais am na à une certaine heure yi nga xam ni dañuy chaîne yooyu loolu rek lay teg te ku ko ku fa dem xam nga ni lu yaa fa demal sa mm-hmm. te dafa am heure bu ñu koy teg te am na lu ñu siy def ak yooyu mais fii je pense que ni euh, léegi ku ne da dugal si sa chaîne sa chaîne YouTube ñoom ñëpp am nañ ko mais bu dee télévision yi wax dëgg yàlla. am na yoo xam ni war nañ ko xool ba warul jàll. Mm-hmm. loolu moom loolu man foofu laay déplorer. li may déplorer man parce que man gis naa vidéo bi foofu dama tikkee parce mm-hmm. xam tey jii soo koy soo koy soo koy soo koy soo koy soo koy su fekkee dañ ne garaaw garaaw garaaw mujj gi day mujj garaaw nag. parce que liy ñëw moom moo ah, tax. lan la mhm. kii bi dafa dafa garaaw. waaw dafa garaaw image c'est des images articles pornographiques. après sëriñ euh, tegal ñu ko. ku góor dafa jaaxaan ku jigéen toog si kaw toog si kawam. Mm-hmm. juste partie kii bi di donc. neexul sax wax. Mm. donc <laughs> di lëmbal daal loolu kii quoi. c'est interdit loolu dañ koy tere si réew. comme genre fii euh, comment dire kan moo fi defoon euh, Fallou Dieng defoon na fi. Euh, mooy lëmbal bu mu defoon noonu. def vidéo gars yi dugal ko gars yi dañ ko censuré dañ ko génne. Mm-hmm. parce que lëmbal bi. ni ñu ko doon defee moom parce que kenn déggatu ko. non ah, daf ko daf ko tourné waat. daf ko defaraat mais bi mu njëkk a tourné dañ ko dañ ko arrêté. Mhm. parce que taloo mooy xam naa certainement Karim dëj bi moo ko tënk rek. mais on aura l'occasion peut-être gën ci jàkkaarloo ak moom. jéem aussi su ma nee benn benn benn benn kii. benn clip bu. Euh, Karim Karim boo xam ne moom moom presque yooyu la doon wax y' cinquante cinq ans six ans moom Karim. waaw tegal nañ ko vaaram ba mu wax lu wax lu rëy. mais xam naa ñëw fii lan moo tax. ma si dolli rek mooy euh, comme comme ni ngeen ko waxee rek. Mm-hmm. c'est que ñun en tant que artiste. Mm-hmm. nekk jeune. Mm-hmm. dañu war a moytu yenn image yi nga xam ne dañ ko war di ko génnee parce que il faut tamit comme li ngay wax xale yi ñoo ñuy seetaan xale yi ñoo leen di seetaan surtout ñoom parce que dañuy am nombre de vues dafa bari. Mm. donc ñoom il faut que ñuy def ñuy moytu parce que boo nekkee xale nekk ci yoon da ngay moytu sax genre détails yi nii mm. yenn détails yi donc loolu laa ci mën a tolli parce que mm. mënuma ci wax lu lu lu lu lu weesu loolu ah. d'accord en tout cas c'est c'est façon euh, Dieba nee ko xam nga aussi il faut ñu xam limite yi fan la tollu la kan la kan mooy limité mbir yi et parti bi moo gën a choqué Karim voilà parti bi la moo gën a choqué Karim peut-être. se dit que c'est des images yoo xam ne en intimité lay xewee. c'est choquant waruñu ko teg ci télévision peut-être c'est c'est ce qui se dit. mais lii xale yaa ngi koy xool ci jour. waaw mais internet aussi oh, parent bu bu bu bu maanaam bu maanaam ba sa doom am accès foofu. Mhm. di ko xool yow parent bi la quoi. Mhm. mais aussi tamit am na xam télévision nationale wala télé yi mhm. a moom mooy que da ngay toog sa ak sa ak say doom di ko seetaan. Mhm. mais alors alors. bon on aura l'occasion gën ci moom moo porte plainte dina ci gën a andi ay leeral. Ah, ci leneen rek la ñuy dem ñoom ñooñu la sax mu mel ni seen yaram dafa tàng jamono ji ndax ba ñu jugee ci boobule artiste Cheikh Omar Diagne tamit dafa porte plainte Amdy Mignon Amdy Mignon nag nekk ab. comédien waaye jamono yi mi ngi fële ca 2STV. di euh, bokk ci yenn ci ay émission dafa am ay kàddu nag yoo xam ne kàddu yu amaana sax yoo xam ne kenn mënu ko wax bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Omar Diagne moom la xam ne ni moom euh, am di million daf ko fa yëkkati mu doon ay kàddu yoo xam ne nag ba tey mën nañu jàpp ni euh, moom sax ca dama ko jàppee mooy pornographie verbale ay wax yi salte daal yoo xam ne nee na bu ñu ci jógul ba jamono yi wala sax fi mu ñu jëmee ndox du fa am loolee tax moom it euh, gannaaw ba Karim demee porte plainte ki la di jeebaa moom it Cheikh Omar Diagne def na lu ne mel. d'accord euh, euh, man nag peut-être que dégloo guma mm. kàddu yi nga xamante ne am dimi wax na ko ba ñu porté. loolu la xëy na mënuñu ci aventurer peut-être. voilà mais bon. on attend hmm? ci seen émission na mu koy waxee comme parfois. xam nga di nga kafaale xam nga wax nag dafa yombul Alioune mm. Sow ku ñu jox micro euh, juum juum te mënu cee ñàkk man loolu laa ko mën a jàppe mm. peu importe nag li ci mën a am euh, daani ci lu ñeel ay plainte ak yooyu diis na dis goo xam ne peut-être bu ñu fi tegoon dara loo xam ne dina mën a waxtaan ak ñoom paa waxtaan sax mais mm, yedd leen tuuti andi leen dinañu gën a mën a xam fan la ñuy tegee si la non da doon wax mais nee na wax yi mu wax teggi tegginewul pour nga toog ci télévision di ko wax wax bi dafa déborder quoi c'est ce qu'il avec la notion de liberté ah. parce que moi je vous suis mais man xaw ma affaire yi fan lan mooy limite yi. je ne sais pas il faudra ñu déglu am di mignon. xool lan la wax d'abord nañu nañu wut limite sénégalais ñu bàyyi leen ak seen liberté quoi. c'est important ci leneen la tëjee Salma comme dañu dëgmal màggal. Mhm. foog ñu waxtaanee si ndax gis nañu nag milieu showbiz bi na muy yëngoo. Mhm. fële ca dëkk bu sell bi gis nañu nag la fi doon xew gi daaw daaw jékk ak ya jot a mm-hmm. gis nañu nag euh, comité d'organisation bu màggal Touba jël seeni ay mesures ci lu ñeel yooyu les puukare wala sax ay euh, euh, takki or ndax daaw nag gisoon nañ fi la fi amoon ci mm-hmm. Askia Touré ak soxnaam mm-hmm. leneen ci yeneen ci ay année gis nañu fi it ay actrice yéegoon sax ba foo xam ne waruñ fa woon yéeg mu doon mbir yu doy waar yoo xam ne après la ci mujj mooy toog kolu toog ci télé bi di jéggalu ay loo xam ne nag lu war a mën a éviter la kon da ci baax Euh, ñu teel cee mën a àddu yemale leen ndax nag euh, ñoom seeni ay mbir du yem mm-hmm. bu ñuy màggalee dañuy mel ni daal ku jëm euh, Las Vegas mën nañu ko jàppee noonu mm-hmm. te yooyee doon na loo xam ne dañu koy tere ci dëkk bu tedd gi comme mm-hmm. ñoom it ay porteurs de voix lañ dañuy nekk ci seen bi dañu leen ni ñaan ngalawaay rek bu ñu demee ñu xam nañuy taxawee te may tundiku li fi doon am euh, ni yi at yi ñu génn. Mhm, c'est important comité waaw greffage ongle cellule xeesal xeesal euh, voilà ak yenn coono yi ñi xeesal dem dugg Touba wala déet. ah ñu ngi dugg bu dee ah, ah? bu dee màggal bu dee mu ne la bàyyi nga ñëw. or oh, màggal sax sëriñ bi si boppam moo tere euh, greffage foofu tere fa ongle tere fa cellule jigéen ñi dañuy seetlu ko bu ñu demee màggal dañuy naan dañuy dem bu ñu demee dal ci kër gi ñu dal mm-hmm. mais xëy na loolu duñ ko yóbbu bu jumaa ja alors que interdire bu nga xamante ni territoire tubaab yëpp normalement kenn waru ko fa def loolu ñàkk ñàkk yar laa ko laa ko a tuddee daaw gis nañu faux ongle ak yooyu yooyu noonu mm. <laughs> mi ngi noonu insisté foofu Alioune Sow bàyyi <laughs> euh, dañuy tàggoo rek seulement yeddaat leen rek <laughs> bàyyil foofu ba point bi baaxul boobu baaxul da ngay génn xam parfois nga wax ba dugal loolu dafa mel ni sëñ bi moo ko tere daal parce que du yaa sa bopp am na solo trop ko tere merci beaucoup waaye Touba <laughs> muy noonu Salma dañ ko fi euh, yemale rek nag euh, ba prochainement incha allah mm-hmm. lépp lu ñu fi waxtaanee nag on aura ñëw euh, Abdou Karim ak sax Cheikh Omar ñëw yaatal ci lu nu mel ndax nag ah. waruñ cee mën a yem te it c'est important clip boo xam ne def na trois mois ak léegi mm-hmm. ba nii nii nii coow li di door a jóg oh, c'est tout à fait normal ñu ñëw andi ci ay mm-hmm. leeral vu que plante bi ñoom la ñoom la concerne. waaw ah, aussi bu ñu mënee andi Jeeba aussi. joxe woon ñu waxtaanee le grand DJ. Hmm? nga ne ko soo ñu mënee andi Jeeba aussi. ñu wax si waaw Jeeba. Mm. Jeeba nag bon pour dire vrai am na ñuy wax bon tenté naa ay yoon même avance problème bi. Mm-hmm. Euh, mais j'avoue que dafa xaw a difficile na pour ñëw parce que tout le temps dalay tegal ni dañoo am na lu may waajal bàyyi ma ba ma kii tout le temps tout le temps bon après da ngay comprendre que ni peut-être bëggul ñëw wala bokk dafa am fu mu bëgg dem ak fu mu bëggul ñëw donc loolu da solo waaw mais bien sûr léeg-léeg ma gis nañ ko dernièrement voilà donc kon man tamit aussi je dis les choses telles qu'elles sont waaw c'est vrai c'est comme ça noonu la lu muy daw moom it waaw li muy ree rek war nañu ko wax dana rëy na lim fi lim wax nee na bee tamit Aliou Sow yedd leen kii. baax na na ñëw bon ah, merci beaucoup merci à. <laughs> jërë ngeen jëf ah. mbokk ba semaine prochaine incha allah. bu leen fa waxul rey ay béere parce que léegi tuuti ñu ne la dëmm nga. <laughs> tey tey de mot loolu la maas wax nee ku wax bee laay reere ñu tam la en tout cas alors euh, fidèles téléspectateurs ñu jëli ji tout de suite musique <laughs>